asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi gannaaw bi nu sante yàlla suñu boroom cant gu yelloog jëmmam ju tedd ju màgg ja julli ci sangu-sang yi muy sayidil wujud wa alami shuhud sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla suñu boroom yàlla yàlla doolee ràng ay garaat ak i ki nga xam ni mooy suñu wasila suñu digganteeg yonent bi di mawlaana sayidi cheikh ahmed tijani sharif radiallahu taala anhu dellu siwaat nañu ci suñu émission miftaahul huda ci seen télévision safina tv ak tubaarakallaahu ànd ak suñu technicien xaj sàmba si ñu dellu siwaat comme niñ ko baaxoo def rek ci waxtaane ay xew-xew yu xew ci jamono bi ndax arab yi ñooy wax naan li kulli makaanin maqaalun palaas bu nekk dafa am luñ fa war a wax te jamono yi nag ci senegaal kuy woo nit ñi na nga leen woo ci jàmm ak jàmmoo ndax sëriñ Babacar Si radiyallahu taala anhu mag ñi nee nañu dafa daan wax ni soxla bu dee ñaar jàmm am bu jàmm amul soxla benn rekk lay nekk ñu ni ko lan si Malick mu ñu mooy wuti jàmm ba am jàmm kon kenn ku nekk foo tollu war ngay fexe am jàmm war ngay fexe di ñaan jàmm war ngay fexe di wut jàmm war ngay fexe di def jàmm te tey Sénégal fi mu àgg nii wax dëgg yàlla ak mag ñu baax ñi fi tëdd ak leeri mag ñi ci salaatul faatix yi leeri mag ñi ci xasaayid yi léri mag ñi ci seen bind yu tedd yu sell yi dëgg dëgg dëgg kanam gii Sénégal am tey yelloowu ko kon nag kenn ku nekk na duggaat roq mën a kan mu xool boppam xool jëfam yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa wax ni al fitnatu naimatun laana allahu man ay xasaha yonent bi dafa ni fitna ma nga tëdd di nelaw coow ma nga tëdd di nelaw xuloo ma nga tëdd di nelaw xeex ma nga tëdd di nelaw sànnante ay xeer ma nga tëdd di nelaw xastante waxante lu bon ma nga tëdd di nelaw yonent bi nee yàlla rëbb na ku ko yee waxul ku ko def de ku ko yee rek te gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxam dafa riche gis nga boo xoolee fitna ji am tey ci Sénégal ñu ko fi indi ñëpp ak ñi ko sooke ñëpp ak ñi ko waral ñépp seen dara du ca yàqu seen kenn du ca gaañu seen kenn du ca yàqule soo seetee fitna bi ñi ko fi indi ñëpp ñaari camp yëpp soo ko xoolee dara dara du leen ci yàqal lenn ñun ñi nga xam ni nag ñooy citoyen yi dëkkee réew mi rawatina ndaw yi dëkkee réew mi waay waay nañ xam suñu bopp xam suñu bopp gi mooy nit war naa ëppale boppam ñaari nit jote wala ñaari kilifa yu politiciens nekk di wax wala kenn ak keneen ka di wax ñuy jiiñante ay ay wax yow la du man yaa ko waral waraluma ko da ngeen maa yaa ko def yow moo yow lu ci sa yoon toogal ci sa kër déglu leen ñoom ñaar yow ba toog kër déglu leen ñoom ñaar nga maandu waaye ma ànd ak kee kee ànd ak kee may sénégalais kee di sénégalais ñun ñaar ñu jàkkaarloo jël ay xeer di sànnante loolu daal dëgg dégg dëgg kanam googu Sénégal moomu ko moo tax réew mi maa ngi wax bépp politicien bépp koo xam ne da politik politique bàyyil sa xel sa digganteeg sa borom xam ni bis dana ñëw nga laloo sa ndeyjoor yow keseeg sa bàmmeel te lépp loo fa defoon wala lépp loo waxoon wala lépp loo jéemaloon nit wala ndëgg sërëx boo doon gësal nit su boobaa danga ko fa fekk fa man yaamal misxaala zarratin xayran yara wa man yaamal misxaala zarratin charran yara kooku maa ngi leen koy dénk yéen ñëpp di leen ko fàttali àdduna dafay jeex nguur goo xam ni lu mu yàgg-yàgg-yàgg du mat ñaar fukki at wala lu mu yàgg-yàgg-yàgg du mat fanweeri at xoolal ñoom firaaw na ñaata at la ñaata at lañ nguuru ñoom Namruus tey fàtte nañ leen fàtte nañ leen beneen ci des ñun askan wi askan wi ñun kenn ku nekk na xam boppam xam ni gis nga man dama jaaxle tuuti da ngay xëccu réew mi bañ jox la ko nga ni bëgg nga réew mi réew mi mi nga bëgg mu avancé bu ñu la ko joxee xoola boo nekkee ci réew mi ba retraité sax doo toog ci réew mi xoola président Senghor bi mu joxee Abdou juuf réew mi man xaw ma fi këram gu mu dëkk France la dem dëkki ba yàlla moom ko ñu indi ko jenc ko belleer Abdou Diouf toog toppoon ci moom ba mu wàccee ma nga France dëkk fa ab lay Wade <laughs> ma nga France dëkk fa man dama yaakaar nit soo bëggee réew bëggee xëccoo même soo liggéeyee ca réew ma ba pare da ngay dëkk ca réew ma wala nga toog ca réew ma kon waa réew mi nañu yeewu ñun bàyyi xeex bi bàyyi xuloo bi bàyyi sànnante bi beneen bi ci des tamit maa ngi koy wax xale yi wër di taal nañ bàyyi osan yi ñuy taal bàyyi station yi ñuy taal bàyyi oto jàmbur yi ñuy taal bàyyi marchandise jàmbur yi ñuy taal bàyyi pneu yi ñuy taal ci yoon yi loolu nañ ko arrêté parce que li ngay yàq yow yaa ko moom tey osan yi ñu taal ñaata sénégalais ñoo fi doon xëy tey dootuñu xëy station yi ñaata sénégalais ñoo fi xëy dootuñu xëy oto jàmbur bi nga taal lor nga ko yow xamoo noo def ba am ko kon bu kenn taal yàq bu ko kenn def te ku génnee aw nit xale yi soo leen génnee walla nga wax lu leen génnee lu nu yàqu yow am nga ci part de responsabilité parce que yaa wax ba ñu génn te xale xale la yaa ko wax kon xale yi tamit yeewu leen bu leen kenn génnee toog leen seen kër yi lu ngeen di jàmbat jàmbat leen ko ci toog waaye bu leen génn mukk ci mbedd mi rawatina ngeen di génn di jaamaarloog takk der yi ndax takk der kenn warul jaamaarloog moom lu tax du pour da ko ragal waaye da ko jox cër ndax moom mooy boo tëddee guddi di nelaw moom moo aar moom aar moom mooy tax sa xaq ak sa yelleef nga jot ko kon kooku waroo taxaw di sànnanteeg moom ak ay xeer ak di dóoranteeg moom ay xeer da ko war a jox cër du jëm ji nga jox cër waaye li mu représenté ci réew mi mooy tax nga koy jox cër kon nañ leen jox cër dimbali leen ci li ñuy liggéey beneen bi ci desit lu mel ni média yi rajo yi ak télévision yii ma jàkkaar lool nañ bàyyi di wax luy taal réew nañ ko bàyyi télévision yi laa wax ak rajo yi ñen nat ñi nga xam ni dañuy wax loo xam ni day taal réew nañ ko moytandiku nit suy wax day wax lu baax nit suy wax day wax lu baax yonent bi nee na من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت waxal lu baax te nga noppi lu bon jarul wax déedéet lu bon jarul wax wala boo koy wax bu fekkee da ngay joxe ay information wala ngay joxe ay xibaar nga joxe xibaar yi rek te yam ca waaye joxe xibaar ba pare bëggaat sarxaa xibaar bi mais loolu mooy lan yow journaliste nga ah na ngay joxe xibaar mais joxeel xibaar bi rek nii moo xew fii pare nga ci mais joxe ko ba pare bëgg ci def ay analyse bëgg ko sharha bëgg xamal nit ñi fi ñu ci bëgg taxaw xanaa yow doo journaliste kese kon loolu itam ñoom ci ñiy taal réew mi ci lañ bokk ci ñiy taal réew mi ci lañ bokk su ko defee nit soo nekkee ci réew da nga fay wax jàmm soo nekkee ci réew da nga fay def jàmm soo nekkee ci réew da nga yéene réew ma am jàmm moom la suñu maam alxaaji Abdul Aziz Dabaax daan wax ni soo nekkee ci gaal sa ëmb nekk ci gaal bul ñaan ëmb bu mucc ñaanal gaal gu mucc su gaal gi muccee sa ëmb mucc yow nga mucc Sénégal ñu ñëpp ñoo ko bokk su tàkkee ñun ñëpp la tàkkandool ci xale yi maa ngi leen di wax lenn de gis nga réew mi bu tàkkee ay ñii tax leen ngeen di sànni xeer ak di génn ak ñii tax leen ngeen di jël ay yat di dóor kenn ku nekk am na ci ñoom double nationalité suy réew mi di tàkk ñu jël seen saak jël seeni doom jël seeni soxna génn réew mi kenn ku nekk am na ci beneen réew fu mu mën a dëkk ba dee te moo ko moomal boppam te yéen amu leen ko ñun suñu baraag yi lañ am ak suñu néeg yi amuñu fu dul Sénégal kon buñ ko taalee ñun ñooy dee ñun ñooy loru mais ñoom ñii di wax kenn du ci loru preuve bi mooy li ma la wax léegi président bu fi toog boo wàccee doo fi dëkk dem nga. doo fi dëkk dem nga bu nu feebaree duñ fi fajoo bu ñuy noppalu duñ fi noppaloo ñoom ñëpp bitim réew ku feebar bitim réew ku retraité bitim réew kuy faju ji bitim réew kuy noppalu ji bitim réew ñun nag amuñu lu dul Sénégal gii waay waay. bu ñu ko kenn taalal nañ ñu bàyyeeg suñu réew mi ci jàmm ak salaam politiciens yii ma gis nii kenn ku nekk li ngay wax pour sa bopp kese la waaye du pour senegal ndax bu doon senegal ñoom ñu joxante loxo kenn ku nekk indi sa xel indi sa xalaat indi li la yàlla may ñu àndandoo joxante loxo liggéey réew mi waaye kenn ku nekk sa bopp la ñor comme kenn ku nekk sa bopp la ñor nag da ngay xëcc su ci nit deewee sa yoon bu ci nit gaañoo sa yoon xoolal bërki démb ba léegi xale yi seeni tànk gaañu na ñii seeni loxo gaañu na ñii dee nañ ci manifestation yi lan moo fi jar loolu lu ko fi jar ay xale yu tuuti yu ndaw ay ñoo xam ne sax seen yoon nekku ci ndeysaan liggéey nañu wàcc dee ci oh, taal ay pëna lii dara jaru ko te ñii tax ngeen koy def jaruñu ko jaruñu ko de nañu dellu si suñu xel delloo si suñu xalaat xam ni réew mi ñoo ko bokk te mënuñu koo séddoo ñoo ko bokk te mënuñu koo séddoo kenn ku nekk fexeel wax lu baax def lu baax ba réew mi jëm ci kanam maa ngi koy dénk sama bopp di ko dénk ndaw ñëpp di ko dénk waa Sénégal yëpp di ñaan yàlla yàlla na yàlla def jàmm ci senegal yàlla na fi yàlla def yàlla na fi yàlla def jàmm def fi sutura ay wi fi tak yàlla nako yàlla fay ba mu giim ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi deug gi fete yàlla nako yàlla wanalel bopam ba ñëpp xamni ki mo am deug yàlla nako yàlla def ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam sen seen mbokk daara Pape Makhtar Sylla wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh